waaw dañuy sant yàlla ci wàllu politique soo nekkee acteur politique suñu waxul ci yow c'est yaa ngi bëgg a disparaître donc am na solo ñuy waxtaanee suñu parti réew mi ak lideram leaderam Idrissa Seck li andi actualité bi nag xëy na mooy fin wu compagnonnage entre le parti réew Rewmi et le président Macky Sall au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar c'est dans la logique de vie d'association comme ni ma ko mën a waxee parti parti politique yi ak coalition yi ay association lañ et dynamique associative dafa am ay convergence dafa am ay divergence dafa am ànd dafa am ñàkk ànd li am solo mooy su ànd jotee ndax intérêt réew mi nañu ko ànd parti politique boo gis buñ ko créer objectif am mooy la conquête et la conservation du pouvoir conquête conquête du pouvoir nag bu jotee ak recherche pouvoir ku ne mën na wutali boppam suñu tasee nag nga xam ni liggéey rek a jot yàlla mën na def aussi ànd am ànd boobu nañ day nekk àndu dëgg ànd bu nga xam ni Sénégal la ñuy jiital du jiital leneen loolu moo taxoon ñu ànd ak le président Macky sàll au sortir de la Covid bi ñu demee ba nga xam ni jongante war na ñëwaat du ñu def lu nga xam ne day andi conflit d'intérêt day àndi xel yu jaxasoo am nañu sañ-sañ. jëlaat suñu liberté demaat à la recherche du suffrage des Sénégalais pour occuper la première station